li rabbi ngir waxi ab buur laa yu shakku boobu deful sikki sàkk fii ci moom fii suurati najmi ci saaru najmi ne falaatu zakko bu leen sellal falaatu zakko anfusakum wa aalamu bi man ittaqa juróom-ñett yi bi ci njëkk nee mooy fen del moytu saw làmmiñ wax lu amut wax lu amut rek mooy ñaareel ba jëw nag mooy wax ci nit loo xam ne nii su ko déggoon du ko neex moo xam daa aju ci jëmmam mbaa ca la mu sol mbaa ci ab toolam mbaa otoom lépp lu aju ci nit ki rek daal loo ca wax loo xam bu ko déggoon bu ko neexee te fekk loolu am boole ci loolu mooy jëw bu fekkee loolu amul sax far boole ca nag may gën a doy waar ndax da nga koo jëw bu noppi duural ko ba tey ñetteel ba mooy werante werante mooy dégg loo xam dëgg la ci xol xam waaye nag bëgg dara ja tax nanguwoo ko daal toppal dëgg googee loolu boo ko defee yaa ngi ci werante saa yu déggee dëgg te nanguwoo ko rek loolu yaa ngi ci yoonu werante de sax bu fekkee dëgg nga feeñewut nga xëri ci bëgg mu feeñ bañ topp ko loolu lu baax la alji daal bii joo muy dóorantey lay bu kee waxee lay kee wax weddi ko teg ci weneen lay loolu buñ ko defee te amuñ ca pas-pasu leeral diine xanaa rek dóorantey lay la ngir topp bakkan ak bëgg àdduna rek loolu ëpp naa def moom it wares na ko moytu ndax day tax diine woyof ci xol yi day tax nit ñi wan gannaaw diine dige ba noppi wor maanaam lépp looy dële rek na fekk ba nga koy dële fasan nga koy yéenee def gannaaw ba itam lay teemu am rek ne dogal bu waaye yow ne mu xas nga ko digg rek do nanga nga dogu ci ndegam digg nga ko nga matal ko na nga moytu nag di dëli loo xam ne yaa ngi koy wax waaye xam nga naroo ko da koy wax ni rek waaye naroo ko mbaa nar ko waaye gannaaw ba nga sàggan ca ba matale woo ko te fekk na man nga koo matale bi ci topp nag mooy rëbbu maanaam moolu menn mbindeef bu la neexee sax mbooloo mu bon a bon ni ki yahood yi nga ne yahood yi yàlla na leen yàlla rëbbu waaye nag ràññeel kenn kuy dund rek rëbbu ko te xamoo ba xam nu ñu mujj ndax mën naa mujj tuub dañuy aaye daal jëmm joo xam ji ràññiku la te it mi ngi dund faatoogut xamuñu nu muy mujje nga di ko rëbbu donte ak kéefaram gu ñaaw a tax mbaa dara it xamagoo rek mi mujj dañ koy misaal ci Omar ba mu tuubagul rek yooyu jamono ku xamoon ne dana mujj tuub ba gannaaw bu Aboubacar jàllee moo ci gën a màgg ci xeetu yonante bi loolu lu yéeme yéeme la bi ci topp nag mooy tagg sa bopp tag sa bopp ëpp naa def ndax suñu borom dane fala tuzakku anfusakum bu leen jekk di wax seenu mbaax mbaa seenu sell ndax man yàlla mi leen bind maa leen xam dëgg-dëgg teew nag waxtaane ak farloom ak la muy def ci lu baax ak ku sellam ndax bëgg ñu roy ko ca loola moom lu baax la wa daa daawatun ak ñaan musiba xalaa arimin ci kenn fil waraa ci mindeef yi li xabaril madloomi ngir xabaaru kañu tooñ min xëyil bara tukkee ci ngën ji mindeef ya ba tey nee na na nga moytoo ñaanal kenn musiba ci saw làmmiñ lu la waay tooñ tooñ ak lu tooñ nga metti metti daal bul ko ñaanal mukk musiba jégal ko rek mbaa nga bàyyi koog yàlla ndax yonent bi neen woon ittaqoo daawatal mazlumi da dangeen moytu ñaanu ku ñu tooñ ndax ku ñu tooñ yàlla faaw day nangu ñaanam li gën sax mooy ngay moytoo tooñ foo toll ndax boo xësee tooñ bu la kooka ñaanalee musiba rek daan la dal waaye nag buñ la tooñee itam nga xam ne boo ñaanee musiba ma dal ka la tooñ bëgguñu nga bëgguñu nga ñaanal kooku musiba ñu bëgg rek nga jéggal ko mbaa boog nga bàyyi ko yàlla thaminuha ak juróom-ñetteelu seen almasxu mooy kaf ga bi fatxil miimi ci fataa miim ga waxu moom nag addu xaabat mooy mbóorante ayaa xamiimi yow sama xarit juróom-ñetteel gi nag nee mooy kaf kaf de moom bu fekkee la ngay wax rek dëgg la kaf ga yóbbuwu ci wax lu amut te it nga bañ koo baril bu ëpp kon dana dagan waaye nag soo ko barilee rek ñu sib ko ndax yaa ngi sànq sa dund rek ci lu amul njariñ bu la nga ga taxee wax lu amut it dañ koy bind rek muy bakaaru fen kon nag lu kaf gi neex neex nanga nga moytoo wax lu amut wamañ yedum ku sax ala sukkuwati ci noppi wajitana ba te mu moytu xat yi atan aw ñaawteef naa la mu am jami xamaam mboolem la nga xam ne iktasaba fàggu na ko nee na ku sax ci téye soo làmmiñ ci lépp lu amul njariñ di moytu lépp loo xam ne yàlla bëgg ko kon na nga am lépp loo bëgg waqadru yi net leef na ànna siddiqa naka dëggalaa ba al akbar ka gën a màgg kaana nekkoon na yekk bu di këpp alxajra aw doj fii famihi ci gimiñam min ajli xaw fi kasratil kalaami ngir ragal bari wax ja xanhu yal na nekk ci moom ridar rahmaani ngërëmal aji yërëme ja dil anaami kay boroom mbindeef ya wax ne ne abubakar as siddiq nga xam ne xeetu yonante bi bi jàllee moo ci gën daana jël aw doj teg ko ci gémmiñam ndax rek bañ a wax lu mu warta wax di moytu wax ju bari daana tax mu jël aw doj këpp ko ci gémmiñam da ko ñaaral nag yàlla dolli ko ngërëm loolu ci ngay tegtaloo ne tey soo làmmiñ war nga cee farlu bu baax a baax faslu ni ab dog la fi battani ci biir mu jàllu si ci biir wal battanu biir fa fadhu nanga ko wattu xanil xaraam yi walis aji araam wa shubahin ak ay lënt wa mushkilin ak jëpp aji lënt yaaraam yi yow aji diir lu baax yaaraam yi jooju dana ko firee noonu rek ndax gis li ci gën a fes mu bàyyi ko ci rama sànni na raamin aji sànni mën naam itam nag li ñu tudde arra'mu arra'mu mooy doom joo xam ne ka koy toppatoo du yaayam ra'mu fi wayefalee alif gi xam ne kon yaa ra'mi la woon alif ga nag ñu bañ koo maas bu daal doon yaaraam yi ba tey xëy na muy loolu su boobaa muy firi yaaraam yi yow sama doom daa wax ni biir na nga ko sàmm bu baax a baax ba loo ci dugal rek nga xam ko muy lu lew waaye lu araam mbaa lu lënt nanga ko moytoo jëmale ci sa biir idd ab na sax xalaa talam musil xalaali ci sàkku aji lew tan ji kon gu mucc minal xotoo bi ci ay mbamb wal ahwaali ak ay tiit yéen góorgóorlu ci am lu lew ndax ab julit lu lew rek la saña jëfandikoo kon nag del farlu ci am lu lew boo ko defee rek nga xam lu lew rek ngay jëfandikoo te nga mucc ci lépp lu aay wajj nanga na nga moytu ashbaha reggaay ba li ànd fii ngir naka nekk na ci moom sittat ashya juróom benn yëf bilaa tam wi hin ci lu dul lëntal nee na regg nag moom dee ko moytu ndax am na juróom benn yu ci nekk yoo xam ne yu day waar la nga dégg ñu waxal la ko fasaadu xifzil mar'i yàquk mokkaluk cam sa wa dihni ak xel ma maxan boole seen tumma xasaawatul xuluubi topp wawu xol ya fas maxan na nga dégg wa siqalul axdaa yi ak diisub cër ya wat taxriika ànd yëngal ga li la dati nafsi ñeel bànneexu bakkan ba ijtanib na nga moytu sharikan aji bokkaale laa siyama rawante nag ar riba maxal xaraami ànd ak aji araam faltamis na nga sàkku alxalaal aji leew fil maraami ci càkkuteef la juróom benn yi ba ci njëkk mooy day yàq ak mokkal maanaam boo dee taqoo regg la nga mokkaloon da koy fët ñaareel ba mooy day taxa naqarim xel loo neex neexum xel boo dee taqoo regg dangay ngay naqarim xel ñetteel ba mooy day indi xol bu wow xol bu woow nag mooy xol bu ñàkk yërmande buñ ko dee waar mbaa mu gis lu xolam war a jeex yërëmtalu ca it du ca waaru xolam du ca jeex ñeenteel ba mooy saxoo rek day tax say cër diis ba doo sawar ci jaamu yàlla doo sawar ci sàkku xam-xam bu am njariñ juróomeel ba mooy day gën a yëngal sa bànneexu bakkan mooy la sa bakkan daa bànneexoo da koy gën a bànneexoo naqaree walbati lool ci la bëgg moom bakkan ba du neex wëlbati ca bànneex ba ndax day gën a dëgër ca moom ndegam nag xëy na nga defee ne regg ci lu araam rek niki riba mooy andi yi waaye regg ci lu leew moom du ko waral mu ne la ah déedéet moom kay moom regg ci boppam rek mooy andi musiba yi rawante ne nag la mu reggee nekk lu araam góorgóorlu ci di am lu lew te boo ciy jëfandiku bañ a àgg ci regg wàññi na juróom ba ko juróom benneel nag mooy saxo regg day tax seytaane gën laa mën a fexeel ndax loo gën a taqoo regg rek sa deret gën a daw seytaane gën laa mënal bu la fexeelee rek dal lay jàpp day mel ne kon yaa ngi dimbali seytaane ci sa bopp ci lam lay fexeel rek sotti wa nusratun ak dimbale bil kay di ca pexe ma li seytaane ñeel seytaane am mën naa yàlla nanu wóolul moo yàlla nanu musal allahu yàlla mi ne tux yaa ni ci mbewte ne bokk na ci musibay regg day dimbale seytaane ci yow mooy day may doole seytaane ci yow mooy day gën a may doole seytaane mu am bunt ci yow mabda'u kulli sharri tàmbalikaayu yépp ay nag fil ahwaali ci mbir ya xul waxal ne shibahun moo di regg min xóoti ko ci sab dund alxalaali bay aji dagan nee daal am lu lew tiim ko lekk ca ba regg daal day nuru ni ayut waaye li ëpp ci bon bon yépp foofu lay tàmbale dañoo jëlali nag lekk ci lu araam ba regg lekk ci riba bareg wa talabul xalaali sàkku aji lew fardun farata la kutiba joj bindeef na ko joj farataaleef na ko in saaxaba nem àndoonte naag attaaxa topp ga yaa mukk tasi ba aji fàggu sàkk lu leew moom farata la ci bépp jullit ndax ndegam moom ab jullit sañ te lekk lu lewut kon nag war naa farlu bu baax a baax ci wut lu lew farata la ci moom daal mu wut lu lew su bëggee topp yàlla topp yàlla gu ñu nangu daal du mën a ñàkk mu farlu ci am lu lew laa yen faxu du jëriñ alxilmu xam-xam maxa saxi ànd ak jëf ju yiw mata xaalatahoo saa yoo xam ne jaxasoo naag moom ak lul xaraami lekk aji araam yaa fatani wascam mata xaalatahoo ak lul xaraami nee na xam-xam lu bari bari ak jëf ji yiw lu ko waa ji baril baril bi ca boolee lekk lu araam rek jeex na xam-xam ba du ko amal njëriñ jëf ji ja du ko amal njariñ waxtarizan na nga wattandiku minal lësi ca la nga xam ne ay xamta wóolu nga bi kaw nii ci ak nekkam alxaraama di aji araam aw zananta wala nga jortu ko nee na daal looy def ci sa biir rek na ko xam bu baax a baax na nga ci moytoo def nag loo xam ne wóor na la ne daa araam mbaa sax nga jortu ko loo cay def daal na la wóor ne lu lew la inna taxaama naka ñam malihun aji xoromu la maanaam aji neex lay doon xind aakilin fa aji lekk laakin waaye yasiiru dana mujj baadu ci gannaaw ba raa itan di ay xayta xabiixan yu aji bon ndax nee ñam boo koy lekk nii dana neex waaye nag bu xasee wees gimiñ gi rek fàtte nga neexaay ba te it nag day soppiku ci xayta yoo xam ne doo ko jege sax faslu li ab dog la fi farji ci pëy wax zar na nga wattandiku bil ji ci pëy aydan ba tey an ngay booloon teeg xayral lëti ndare jigéen ji nga xam ne xàllat dagan na na nga moytu joteeg jenn jigéen joo xam ne léwu la ci sawukaay maanaam na nga téye sa sawukaay bu baax moytu see joteeg jenn jigéen joo xam ne léwu la du sa soxna daal ci gàttal wala tumaati an te bul bànneexonteeg moom wala tumaati an te bul bànneexu bil xawli ca wax ja wala massi ak laal ga awil mubaasharati wala jonjoo ga aw istimaaxi sawti wala déglu kàddu ga wala munaadarati ak xoolante ga na nga moytu bànneexu ci waxi jigéen joo xam ne du sa soxna wala laal ko ci genn wet mbaa jonjonteeg moom ci yaram mba di déglu kàddoom mbaa di xoolanteeg moom yépp daal nanga ko moytu in kunta ndeem nekk nga xaaji san di aju lot xan haadihi wali siile falaa tutiixu kon doo àttan xisal farji wattu pay ma wattu sawukaay ba yaa mum tasi la ñëw aju topp ne yi mu wax muy bànneexu ci waxi jigéen ja mbaa laalanteeg moom mbaa jonjonteeg moom ci yaram mbaa xoolanteeg moom mbaa déglu kàddoo muy neex day nuru lu woyof waaye nee boo mënta moytu yi kat boo àgg ci njaaloo gu mag mooy joteeg jigéen ja ca sawukaay ba muy njaaloo dëgg kon nag na moytu yii ndax yii ñoo mooy naa i na nga sorenteeg alxawaaxiba jigéen ña di way yëkkati ko ay ween maxal rawaan yi ànd ak jongama ya li ànd xaa naka ñoom xaba ilu seytaani ñoo di fiiri seytaane ki wax pertangal waaye pertangal mooy fiir nee na del sori jongama yi ndax ñoom la seytaane def muy fiir yu mu samp ndax jàpp ci góor ñi wal tamis na nga sàkku alxoora jigéeni àjjana ya allawaati ya nga xam ne xulli xat bindeef na leen kasuru jin ñu mel ni ay làmp balli fi nekk ka bu dóori niki ay weer kamulat yooyu mat nañu nee na ngay jéem a am jigéeni àjjana ya na nga fàtte jongoma yi te sa nekk ci am jongoma yooyu nga xam ne ñoo nekk ci àjjana te lool leer ba mel ne ay làmp mu ne ah weesu nañ ko sax leer ba mel ne ay weer gis mu xaa seen yaram min saa faraanin mi ngi tukkee ci saa faraan wal xambari ak xambar wal misk ak misk wal kaafoori ak kaafoor fadluha kon seen gëneel dur xameef na ko yenn na seen yaram suñu borom da ko liggéeyee ci yu xeet yi rek mel ne saa faraan ak xambar ak misk ak kaafoor law ba law ba saqat doonte tifli woon na min xun ci ñoom fil ard ci suuf waaxidatun kenn faqat dong saarat kon mu mujj moom suuf si ka miskin di mel ne ki gët yu taqatu goog def na ko for nee na kenn képp ci jigéeni àjjana yi bu tifle woon ci suuf si nga daal di gis lépp suuf si ne xeet lool mel ne misk wasaara te mujj al abuhuru géej ya wal abaaru ak teen ya ka xasalin di mel ne kilem kazaniki ni xàkkat la ko nettalee axbaarun ay xabar ay xibaar nee na bu fekkoon ne kenn ci jigéeni àjjana yooyu wàccoon na ci àdduna tifli ci wenn tifli rek mboolem géej yeeg teen yi ndox yépp day sotti ku neex mel na lem noonu la ko xibaar yi indee faslun li ab doog la fil ya day ci yaari loxo ya te dugg ci wax yaari loxo yi la nga ci war a moytu amal ya daani ndaal yaari loxo ya fal tajtanib na nga moytu biximaa ci ñoom ñaar darban dóor li muslimin ñal ab julit wa sarxan ak sàcc yaa ariban yow aji xellu say loxoom na ci moytu lépp lu aay rawantina dóor ci benn julit lor ci benn julit mbaa sàcc alali jàmbur yooyu loxo moo koy def waaye nanga ko moytu bu baax wala takk tuban bul bind bi ximaa ci yaari loxo yi xaw bu mukk xanan aw ñaawteef yë ba wow dana bañ lisaanul làmmiñ nutqahu tuddam ga mustahjanan mbir mu muy lu ñu joonlu joonlu mooy ñaawlu da nga bind ci say loxo wenn ñaawteef lépp loo xam ne dañuy aaye ku ko wax ci rek xam ne dañuy aaye ku bind ci loxo waaw lépp loo xam làmmiñ waru koo wax rek ba tey loxo waru koo bind wala tatanaawal bul yootu biximaa ci ñoom ñaar xiyaanatan wor fil wadixati ca ndénkaan la awil amaanati wala kóolute ga nee na buñ la wóoloo ba dénk la na nga moytoo wor dénkaane googee di ca laal dara loo ci warta laal lépp lu ne wóolu ba dénk la ko rek muy alal muy leneen rek nanga ko sàmm bu baax a baax bul ci war mukk ndax war ëpp naa def waxadaari na nga wattu biximaa ci ñoom ñaar li masi ajnabiyatin ñeel laal jaambur bu jigéen aydan ba tey fusta yàlla na tuufu bil hadiyati ci addiyey yàlla na nga moytu laal ci sa loxo jigéen joo xam ne du sa soxna ñëpp jigéen fas lun li ab dog la fir rij lay ni ñaari tànk ya laatam si bul dox bir rij lay ni ñaari tànk ya lil xaraam yi jëm ci aji araam kal mashi ni ki dox lil fuxshi jëm ci aw ñaawteef maxan ànd ak rambaaj awi salaatini wala buur ya tawil kufri ña di waroo mug weddi yàlla bila darooratin ci ludul lor wa fitnatin ak fitna maajum man di doon mus jalan lum man di doon seetaan nanga ko téye bu baax moytu cee dox lu araam niki dox jëm ci aw ñaawteef mbaa dox di rambaaji di siiwal lu ñu siiwal mbaa jóg jëm ci buuri àdduna yi nga xam ne doonte sax ay jullit lañu itam rek moytu ga moo gën ndax di ci ëpp rek sa diine yàqoo waaye du fa defaroo kon nag bul de mukk ci buri àdduna yi lu may lor ak ngant moo ko waral coo xam ne ñàkk rek waaye su mënee ñàkk rek moom bul dem mukk ci buru àdduna li ànd hoo ngir naka moom tawaadun ak toroxlu la sarihun guy aji wóor lahum ñeen leen wa ikraamun te ak teral la fa zaali qabihun aji bon la li annahu ngir naka yàlla subhaanahu sorelal naa ko lépp leerul ci moom jàlla màgg na amar digle na bi saddi ca dadduga an hum walis ñoom ku nekkal mu tamiran di aji topp bi ci loolee ne yëkkati say tànk jëm ci buur àdduna soo ko defee teral nga ko màggal nga ko te borom doole ju ragalul yàlla kat wareesu ko teral wareesu ko màggal des ko wara wan gannaaw te mata taxir saa yoo doxee lahum jëm ci ñoom min ajli maalihim ngir seen alal taxir kon yaa ngi dox ilal xaraami jëm ci aji araam patruk bàyyil sha'nahum seen mbir ne booy dem ci buuri àddina yi nag ngir ñu jox la alal day mel ne kon da laa wóor ne alal jee alal ju araam la ba noppi nga dem di ca wuti ndax li ëpp ci seen alal day bàyyi ko rekk ci baadoo lay du nekk alal ju lew xaala wax na rasuluna sunu yonante annabi kadi solo al mustafa kadi kuñ tànn salla yàlla dool tedd nga xale yi ci moom rabbu boroomam kama stafa naka mu ko tànne wax na ne tawaaduhum toroxlu ilaa ganiyin jëm ci aji woomal mudhibun aji yóbbu la diina mari in diinay ascam tulu sayhi ñaari ceeram kat lay yóbbu fal tajitani boo na ngeen moytu loolu te waxas duho ak jubloom bisi ci moom kat ganiyun mooy aji woomal saalihun ci aji baax nde la zalimun du aji tooñ id ngir xub fu daaka bonuk loolee waadixun aji leer la addis ba na mu tëdde mooy man tawaadaha li ganiyin dahaba tulusa diinihi képp koo xam ne daa teral ku woomal te alalam rekk tax mu di ko teral aka màggal aka woyofal boppam ci kanamam kon ñaari sulusi diineem dem na sëñ bi ne nag ku woomal ku baax moo tax sax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wax nde bu ku woomal koo xam ne da ab kàccoor ku bon boole ja kon ku ko màggal ngir alalam jooje sa diine ngay ñàkk su màggalee borom alal ngir alalam ñàkk na tuyaa ba ju rëy rëy ndax yàlla waroon naa rëy ci xolam ba nga xamee ne du gis leneen ba di ko rëyal rawante na alali addunay kese wala tam siyeen bul dox bii maa ci ñoom ñaar illaa lima ndara jëm ci la nga xam ne yuru tasaa def na ko gërëm wayu tamaate defe ko tànn xindal illaahi fa buur ba kalmashi ni ki dox lil islaahi jëm ci defare zaadal bayni jëmmi ab diggante aw masjid wala jàkk aw li xadaa it day wala jëm ci fay bor nee boo jógee bay dem daal na lu baax rek yëkkati mel ne bëgg a defare ab diggante boo xam ne daa mat a defar muy ñaar ñoo xam daa am lu ñu nga bëgg ñu defaroo baa bëgg nga jóg jëm ci jàkka ja mbaa fayi bor mbaa dem ca tool yaag lépp lu am tuyaa ba daal haza jàppal lii wa in lam takk fi ndem doo fekk lir rij lay ni ñaari tànk ña xalil hawa walis bànneex fu dixta kon gàccee leef la fit yi ni ci yaari kariir nee na la wóor ne bu fekkee doo téye say tànk moytu cee topp sa bànneex di doxi caaxaan ne kon da am gàcce addunaak alaxira bu fekkee doo téye tànk moytu cee sa bànneex caaxaan xamal ne kon da am gàcce adduna ak alaxira faslun li ab dog la fi la ay nay nit ñaari bët wala ay na bët ba fa fazha nanga ko wattu xanit nadari walis xool ilaa jëm ci la nga xam ne xarama araamal na ko arrahmaanu aj yërëmi ji yàlla màgg na waxalaate mu kawe kan nadari niki xool lil awrati jëm ci awra aw muslimi wala jëm ci ab julit bi xaynil ixtiqaari ci bëtub xeebeel wa taxakkumi akuk diiju diiju mooy reetaan yenn say bët nanga ko téye bu baax moytu cee xool dara lu araam mel ne xool awray jaambur moom araam na xool sa awray bopp nag bu fekkee du ngànt dañ caa wuute ba xam ndax lu araam la wala lu ñu la kon moytu la xool jenn awra di moytoo xool sa mbokkum jullit ba tey bëtub xeebeel ak bëtub reetaan sa mbokkum jullit danga koy xool rek bëtu màggal ak fonkeel waaye moytu ko xool bëtu xeebeel ak reetaan laa tanzuran bul xool li suuratin jëm ci ab photo wala aw melo malihatin wi aju xoromo bépp photo boo xam ne boo ko xoolee mën na laa yóbbu ci mooy yàlla rek moo xam dañ koy wane ci télé wala dañ koy wane ci cinéma ba dañ koy wane ci journal yi ak fu mën di feeñ rek ci mbedd maak marché ba ci yam na ko moytoo xool ndax bépp photo bi taxa jëm ci mooy rek day araam nga xool ko aw li xojoo bi muslimin wala jëm ci sikki ab julit xabihat ñu di aji ñaaw ab julit bu ko yàlla tegee ay sikk waru koo xool ndax yàllaa ko ko teg rek te nam ko ko tege mën na la koo tege kon nag na nga moytoo xool sikki benn julit xadd xuli xat bindeef na ko moom bët bi la ka ñeel la li koy tëftadiya ngir nga gindikoo bi xaa ci moom fii zulamin ci ay lëndëm fala tastadiyan kon bul ci jalgati wali tastayina ak ngir nga dimbandikoo bi xaa ca moom fil xawaa iji ca soxla ya fakkun nekkal mustayinan di aji dimbandikoo billaahi ci yàlla wali tanzura ak ngir nga xool lil xajaayi bi jëm ci kiimtaan ya bi xaa ca moom bët ba kal ardi ki suuf si wa samaay ak asamaan si faltax tabiran na nga waaru bi maa la nga xam ne xawat làq na ko min ajabil ayaati ci gën jaay yéemuy kiimtaan ya ka samsi ni ki jant ba wal xamari ak weer wa wan ak gàncax ga nee na bët li tax yàlla sàkkal la ko rek mooy bu lëndëmee nga mën cee gindikoo xam fa ngay aw ak boo amee soxla mën ko caa faj ak it kiimtaan yi mu sàkk ci suuf ak asamaan nga di ko xool bu baax a baax di ca waaru di ca dolli ku gëm ak ku wéetal yàlla mi sàkk loolu te sàkk la yow itam xadd manaxa tere na ar rasul yonante ba salla yàlla na dool nga allahu yàlla xaalihi ci moom wa saxbi ak saxaaba ya kamastafaahu naka mu ko tànne bi nadri shaxsin ci xooluk jëm li saxifati axin jëm ci kayitu am mbokk bi xëyri isnihi ci ludul ndigalam xaraaman mbir mu muy aji araam yaa ax sama mbokk ne yonante bi aaye woon na xool kayitu jaambur maanaam leetaru jaambur mbaa ab téeréem bu def defi secret yu mel noonu nga xam ne wóoru la ba xam am na lum ci làq bañ ko nga xamam déet loolu kenn sañ te jekki-jekki fab ko rek daal di xool te bu dee téere alquran ba beneen téere boo xam ne xam nga ne kooku bañut ku ko xool kon mën ngaa fab xool mën ngaa fab jàng waaye nag lépp looy nattable secret nga ca bu borom di bañ ku ko xool wala déer rek nanga ko moytoo xool te amoo ca ndigal kazalika naka noone an nadru xool ga lima lil muslimi jëm ci alali julit bi nadrat ci ab xool tukkurahu boobu def na ko sib xaw fal was mi ngir ragal ayub ba tey nee na kenn sañ ta xool alali jaambur xool bu ci indi sikk ko amee ay bët yu aay nga xam ni bu xoolee dara loola ayub daa war a téye ay bëtam bañ caa xool alali jàmbur waxam ne ni sax ku yàlla binde ay bëtam aay daa war a toog këram ndax bañ a génn di xool yëfi jàmbur muy ayub ñu ko koy fayloo kafaaka doy na la zaajiran ci aji jàjj bi xawli rabbika ci waxi sa boroom fii suurati nuuri ci saaru an nuur faraaxi na nga sàmmoonteeg tarfaka sab gis tey say bët daal moom nee na suñu boroom da ko dénkaane lool ca suuratu nuur ndax qul lil mu'minina yaxuddu min absaarihim ma nga fa wa qul lil mu'minaati yaxdudna min absaarihinna ba tey ma nga fa faslun li ab dog la fil udunayni ci ñaari nopp ña tey bëgg wax nag ni ñu war a sàmmee ñaari nopp ñi wal udna nopp ba fax fadan nanga wattu xanil isra i walis déglu ci moom li bidi xatin jëm ci bidaa wala ñeel bidaa awil faxshaay wala aw ñaawteef kal xaw di ni xuus fil baatili ci ay caaxaan fil baatili cig neen wal xiibati ak jëw ba dikkri masaawi naasi ànd ak tudd ñaawteefi nit ñi kullun leen lu ne ci loolu xat mu ne xa tereef na ko say nopp nanga ko téye bu baax moytu ci déglu lu aay niki luy xeetu bidaa rek ko cënawoo déglu rawante na aw ñaawteef rawante naa si ànd ak tudd ci loolu xat mu ne xa ko say nopp nanga ko téye bu baax moytu ci déglu lu aay niki luy xeetu bidaa rek bul ko ci woo déglu rawante na aw ñaawteef rawante na di xuus ci waxi caaxaan yoo xam ne day indi rek bàkkaar rawante na luy nuru jëw ak tudd ñaawteefi nit ñi yooyu yëpp daal lu mata moytu la xadd xuli xat bindeef na ko lakk ñeel la li koy tas tamixa ngir nga dégloo bi xaa ci moom kalaamallaahi wax yàlla ja fal tas tamixan nanga ko ca déglu wa sunnatar rasuli ak sunna si yonante ba wal axbaari ak fóoriya wa xikmatal asiyaaxi ak xikamub sëriñ sa wal asaari ak jeexit ya yàlla dalaa sàkkal nopp yi ndax nga mën cee déglu waxam ji niki alquran ak sunu si bi muy addis ak waxi borom xam-xam yi ak waxi xikam yi nga xam ne xukamaaw yi ñoo koy wax ak xeet nett yu am njariñ yi in anta ndeem yow as xayta déglu nga li suu in jëm ci lu bon bi ximaa ci ñoom ñaar saara kon mujj naa yi mu ko sa xéewal xalaakandi alkande foofu xaman na nga dégg nee na nopp yi xéewal la yàlla xéewale nga mën cee jariñu kon nag boo ci dégloo lu bon rek xéewal ga soppiku na alkande mooy la nga mënoon a jariñoo far nga ca loru wala tazunna te bul jortu ne am na dambal xiibati naka bàkkaarub jëw ba yuxtasu def na ko jagleel bil qaayili ci aj wax ja fil musibati ca musiba ma ndax fa fii xadiisihi nekk na ci hadiisam ba salaatu rabbihi dollik teraluk boroomam ali yàlla nekk ci moom wala ali ak ñoñña maxan mboole seen wa saxbi ak saxaabaam ya ne inna lësi naka nga xam ne man na it ànna lësi ndax boo ci boole fa fii xadiisihi naka nga xam ne xad yastamihu dana déglu alxibata jëw ba musharikul xaayili aji bokkaale laak aji wax ja fii maa ci nga xam ne yasmaaw dana ko dégg ñene bul defee ne nag nga wax jëw ba rek képp gàddu bàkkaar bu waaye ka koy déglu moom yoonam nekku ca ah kay ki nga xam ne ma ngay déglu jëw ba moo koy wax jëw ba rek ñoo bokk bàkkaar wax kon bul jëw bul déglu itam kuy jëw kallaa uy wa in atlaqta ndem boyal nga uddunay ko sa ñaari nopp sudan ci neen ilil xawaa jëm ci bànneex fa fa tànd mu xasal ngaa réccu xadan ci ëllëg say nopp day boo ko boyalee rek nga xam loo dégg neex na la amut looy bañ a déglu kon bu ëllëgee da réccu lool fas lu li ab dog la fii zikri a'da'il insaani ci tudd nooni nit wa aslihatiha seeni ngànnaay ñoom noonu ya wa sujooni xaa ak seeni kaso day wax yi nit ak ngànnaay yi nga xam ne moom la noonu yooyu amee ak kaso ya nga xam ne mën nga leen caa tëj ba duñ la lor jaaxit na nga jihaat ak arbaxatal axadaay ñeenti noon ya inturid ndeem na nga namm xaqiqatal jihaad yi dëgg-dëgg jihaad ga way taxite nga farlu fiihaa ci ñoom nee na ñeenti noonu ñi mu lay bëgg a wax na nga jihaat ak ñoom bu baax a baax bu bëggee jihaad dëgg-dëgg ndax loolu mooy jihaad ju mag ji moo tax mu teg ci waxoo moom la xam riye sama dund mooy sama ngiñ al jihaadu mooy jihaad ja al akbaru ji gën a màgg kama ataana naka mënu dikkale al xabaru xabaar ba bii ci loolu an jële ci ñoom nee na jihaad ak yenti noonu yi sax mooy jihaad ju màgg ji te mooy gën a yàgg ndax moom sa diiru dund lay doon sa diiru dund lay doon te jihaat ak gees nag moom ay waxtu lay doon rek te benn nga gañe yéefar ba daal di am nga ñaayal ak alaxira mbaa yéefar ba gañe la sa bakkan rot nga daal di dem ajana jihaat ji nag moom te yàgg lool fekkee sa dund yàgg na noonu rek lay yàggee an nafsu moo di bakkan wa dunya ak adduna wa seytaan ak seytaane laa inun ku di ku ñu rëbb su mal topp bànneex kullun kenn ku ne ci ñoom xadduwun ab noonu la mustabiinun bi aji bir nee ñeent noonu yaa ngoog bakkan ak bànneex ak saytaane ak adduna kenn ku ci ne noonu la bu wér wér was ju nan na nga tëj kullaxaa képp ci ñoom bi xëy din ci ab tënk add xama te moo di ab jéng mu kassiran mbir mu koy aji dammte silaaxawo nganaayam la fatas la mat ba ngay mucc kon nga mucc nee na ñeent noonu ñi kenn ku ci ne na ko jéng ci ab jéngam bu tëj ko kaso ci ab kasoom te fexe gaaw dammate ngànnaayam bala mu la ko songe mu daal lay waxal nag ngànnaayee kaso yi panaf su bakkan ba tus janu def na ko tëje bil jooxi ci xiif ba ak tawili bay aji yàgg wamaa laxaa de di ko ñeel xaydun ab tënk wala ab jéng yoon la nu boobu def na ko feeñal siwaaxu ndare moom bakkan moom nee na kaso bi nga koy tëj ba du lor mooy rek xiif boo dee xiif rek moom tey xiif xiif bu digg bu yem rek bañ ëpp sa bakkan du la gañe amal la si ndaal la nga xam ne wujj da fekkeef na ko xaañeel ko si laaxan muy ngànnaay fa shibahun moo di ab regaay jaahit na nga jihaat li nga xam ne mooy ngànnaayal bakkan nag muy ngànnaay bu mu yore te boo yeexee mu daal la koy songe mooy regg bu fekkee da ngaa taxoo regg daal saa yu nekk moom li ci ëpp sa bakkan li ci gañ la te daal yomb wa add xamut duniyaa jéngub àdduna adda niyati mi aji na ko ci ak wéet fanxaas lan na nga beru tastafid kon nga jariñu àdduna kasa ba nga koy tëj te jéng ba nga koy jéng mooy rek wéet waaye néewal ab jaxasoo néewal ab jaxasoo daal moom mooy tax àdduna du la mën a yóbbaale silaahuha ngànnaayam la ëllësi la nga xam ne bii ci moom tur dii lay alage alwara mbindeef ya xultatuhum moo di seenug jaxasoo xalal ji daali ci kaw dàggente wala mira ak werante gànnaay li nga xam ne moom la àdduna di gaaw a gañee nit mooy rek bu fekkee nit ka dafa bari jaxasoo nit ñi te jaxasoo ba amul njariñ xanaa jaxasoo ci weranteeg xëccoo àddunaak dóorante lay yu demee noonu daal baril ab jaxasoo daal moom di xuloo ko werante ci àdduna lu mel noonu daal ku koy def rek àdduna daal ko yóbbaale ama laayinu ndaal kañu rëbb fala xam ri sama dund mooy sama ngiñ wujj da fekkeef na silaahuwoo nganaayam alxaflata mu di càggante ku nekkal mujtahidan di aji farlu nee na seytaane moom nganaay li nga xam ne ci la lay gaaw a gañee mooy rek sàggan ci tudd yàlla sàggan ci tudd yàlla ak fàttaliku ko daal moom boo ko defee rek dal ngay may doole seytaane ci sa bopp wa sijnuhu kasoom ba almatinu bay aji dëgër dikrullahi mooy tudd yàlla fi sirri ci lu nëbbu wala jahri ak ci lu biir bilash ci baaxin ci lu lënt nee bari la tudd yàlla ak di ko fàttali ko di ko bàyyi xel foo toll nag mooy kaso bi nga xam ne ci ngay tëjee saytaane ba du la mën a gañe amal xawaan daal bànneex fadri xameef na si ab kaso la ñeel ko kasarata sumti muy bari noppi na jawta yàlla na nga mucc min taxa yu den ci soppeeku jamono ne kaso bi nga xam ne ci ngay tëj sa bànneex ba du la mën a yóbbaale mooy téye soo làmmiñ noppi ci jëpp wax joo xam ne amul tuyaaba su fekkee daal da ngay téye soo làmmiñ ci jëpp wax ju amul tuyaaba kon sa bànneex du la mën a yóbbaale amma silaahuhoo daal ngànnaayam la ëllësi la nga xam ne yasuulu dana songe bi ci moom shaxsan jëmm fa katratul kalaami moo di barig wax fil fudooli ci caaxaan nganaay li nga xam ne nag moom la la sa bànneex di gaaw a songe daal lay daaneel fi saasa mooy rek nga bari wax ci lu amul tuyaaba xeeti caaxaan yi rawante na wax ju am bàkkaar moom di ci wax rek day tax sa bànneex gaaw laa gañe albaabu lii mooy bunt bi ab saani bi aji ñaareel fii tatxiiril xal bi ci laabal xool day bëgg a wax nag xool mi nga xam ne mooy ndey cër yi maanaam daal ci la cër yépp di aju fu mu jëm rek ñu jëm fa niñ ko war a laabale xal bu xool ba kal mi ngi mel ne buur ba fil axda yu ci cër yi mahma yamil saa yu jengee tamil ñu jeng ñoom cër yi ci raayin ci dul benn werante nee xol bi daa mel ni mooy buurub cër yi ci des nga xam ne fu xol bi jëm rek cër yee jëm foofa wa in turid ndem na nga namm islaaxal awsaali defar cër yi maxan boole seen faatabir kon na nga xalam al islaaxa defar ga lil xal bi ñeel xol ba maxan mbir mu muy léppam nee soo bëggee defar say cër sañe boo defar xol bi ba xol bi defaroo rek cër yi defaru laakin na ma tariqu waaye nag yoonam wa tawilun aji gudd la jiddan lool kazaaka nag noonu it mashyuha doxam ba saqilun aji diis la mun waaye defar xol bi nag ba mu set na mu war a seti dëgg-dëgg moom lu jafe-jafe la te ku ci sóobu nga yoon wu gudd a gudd yoon wu naqare naqare dox laa yaqdiru du attan al miksaalu ab taayee laa kon wala ak aji caaxaan xale yi ci moom xaw du mukk ñax ma amul moroom haadal man xaj wi la yoon ku tàyyeel mbaa ku amee caaxaan moom du mën a defar ab xolam na mu war a defaroo ndax coono ba ci war moom sawar te farlu lool lool te dëggu moo koy tax a sotti wa taxir na nga laabal alqal ba xol ba mi nar la daa ili ci ay caay-caay jamihi ha mboole seen fahdu na nga roy zaril fadaili warom ngëneel ya fexeel ba nee lépp luy caay-caay buy nekk ci xol rek nga fexe ba sa xol set ca te ci gaa yu baax ya am nga neel kal xoj bi ni ki aaw benn caay-caay ngoog buy nekk ci xol maanaam gis sa bopp ak naw sa bopp mooy aaw wal xasadi ak kañaan maanaam ku am xéewal te yéenewoo ko xéewal nga ci sa xol loolu kañaan la waaye nag bu fekkee waxiwoo ko jëfiwoo ko te naqari na la mooy boo sañoon rek yéene ko ko xol bi nga mënta din la ca nekk rek kon kenn la jàppee loola waaye nag bu ko yéenewut xéewal nga ba noppi boole ci di ko waxe ak di ko jëfe nag waaw su boobaa mu daal ne kañaan gu araam nga war riyaay ak ngistal ngistal mooy jëfi àllaaxira joo xam ne yàllay kese kese taxul mu def ko su ko defee ngir yàllay kese rek ak sellal la bu ci lu bokk te yàlla raxee rek ngistal am na ja wa suuxi ak nay nay itam ci xol moo koy sabab ndax bu xol bi bëggee loolu rek nay te alal ji daal di dikk wala kibir ak rëy rëy moom mooy jàpp am na daraja kee itam am na daraja waaye moom moo ko ëppale daraja li yàlla sàkk lépp daal boo ci gisee am na ci dara loo xam ne yaa ko taw rek boobu ak rëy mi ngi ci yow maxal baax daay ànd ak mbañeel wala xiq di ak coxor ba tey moytu ci xolam jekki-jekki bañ kenn te yàq wala soxore kenn déedéet wa shirki ak bokkaale wattu bokkaalil yàlla dara na fexe ba di ci xolam wéetal yàlla ak màggal ko fu mu toll radil asiyaaw yi la yëf rada ilul xal bi ñoo di caay-caayu xol xadaaka yàlla na la jéggi addaa u jàngoro ja ine yi mooy caay-caay yi nekk ci xol nga moytu ko bu baax amar daal ngistal foofu moom shirkun ak bokkaale la asxaru gu gën a ndawe jaa dikke na alxabaru xibaar ba bi ci loolu ani rasul jële ci yonante ba ngistal moom te moo di jëf te yàlla yi ci taxut moom nee na ak bokkaale gu ndaw la ca na ko yonante bi nettalee na ko yonante daal mooy dañ ko moytu bu baax ndax xeetu bokkaale la day gu ndaw rek waaye xeetu bokkaale la laa yéen faxu du jariñ alxaaju aj wala salaatu du caag yi nu julli maxar riyaay ànd ngisal laa déedéet wala zakaatu du caageenu asaka nee na lu kooka bari bari ay jaamu yàlla ni ki julleeg woor ak asakaak ajug yëpp rek bu ca boolee ngistal mooy bu fekkee yàlla yi kese kese taxul rek du am njariñ wax yàlla du ko nangu laa taq su danna bul jublu xayra rabbi tawli ndare boroom xéewal nga fi kulli saayin ci jëpp jëf maxa kulli xawlin ànd ak jëpp wax ngay fexe ba looy jëf ak looy wax lu ne daal yàlla kese kese tax idd ngir rabbu naa sunu boroom aqrabu moo gën a jege li xalqi jëm ci mbindeefam yi min xabli waridihim ci buumu xol seen te daal yi nafsun ab yàq la zukki na bopp mi neef na ko dina jaam bu ne yàllaa ko gën a jege buumu xolam te nam ko waxee moom ci boppam ci alquran kon nag jaam bi nay teew lu ba lépp lu muy def rek ak lu muy wax yàlla ki sa tax albaabu li mooy bunt bi althaalisu bi aj ñetteel ci dikri dayqil xabri ci tudd xatuk bàmmeel wa suaalil malakayni ak laaju yaari malaaka ya wax nag bàmmeel ni mu xate yaari malaaka yee ci laaj maa la nga xam ne xiile waxeef na ko fii suaali saa'ilayni ci laajug ñaar ñu di way laaj fil xabri ci bàmmeel kul waxal ni xaqun dëgg la bi xëy di may njurul fen neen li wax ci ne am na ñaari malaaka ñuy laaj ci bàmmeel lu wóor a wóor la bul ko weddi wasmuhuma seenu tur al munkaru moo di munkar wa nakiru ak nakir amruhuma seen mbir jadirun aj yayoo la bi fikratin ci xalaat nee yaari malaaka yooyu dañoo tudd kenn ki al munkar kenn ki an nakir seen mbir nag nee na lu mat bàyyi xel la soxsaani ñaari jëmm lañ daahiraani yu di aji tiitle saa ilaani yu di aji laaj dil ixtibaar ngir nattoo fusta yàlla nga tuufu bil imaani ci gëm nga ñaari jëmm lañ yoo xam ne dañoo raglu te mën a tiitale tey dañuy laaj ka nekk ca bàmmeel ba nattu ko ba xam lu defan ci mbirum diineem wadukur na nga fàttaliku juloosan ab jataay wala juloosan ak jekki daax a gu xat na sàmm foofee wax daka yow dong fii hufratin ci am pax zaati du jan mu di boroomi lëndëm tax hufuka moom dana la peeg na la wër ci wet gu ne da seet rek ci sa xel nee na noonee ngay toogee ca bàmmeel ba ak bàmmeel ba na mu xate yow dong dong dong pax mu lëndëma lëndëm suuf si wër la ci wet gu nekk bax da ruju waxit daafiniina ci gannaaw dellu way suul ña kullihim képp ci ñoom mustamihan mbir mu muy aji déglu udd naa ko sa ñaari nopp araxa na alihim fëggu seeni dàll mu ne seetal rek gannaaw bi ñi lay suul demee maanaam tàmbali sol seen dàll dem dana fekk ñu delloo la ruugi ba ngay dégg sax nañu sole seeni dàll ak nañu demee wa tatlubu te da nga sàkku an naxda jóg ga ngay buur mooy da ngay bëri bëri bëgg a jóg walasta te déet yow taqdiru ngay àttan xalaa qiyaamatin ci jóg walasta te déet yow tasbiru ngay mën a muñ limaa ngir li nga xam ne samitaxoo dégg nga ko nel axwaali ci ay tiit wa dëx ci ak ngëlamte bil insaari ca xuppe ga wala aw jaali ak njàqare ya nee boo déggee ñu la suuloon di wàññi kuy dem bay sol seen dàll da koy yëg daal di bëribëri mel ne ku bëgg a jóg te doo mën a jóg bu ko defee nag tiit yi nga xam ne moom ngay dégg ak malaaka yi xotti di ñëw loolu doo mën a muñati ngir da suum seenuk gëlëmal néew ba asxalu moo gën a diis min kulli dahshin ci gépp gëlëmal dahasha mooy xayyara wa azhaba alxaqla gëlëmloo ko ba yóbbu am xelam am xelam nekkatu fa loolu mooy addahshu wa amruhum te seen mbir aw jalu moo gën a tara njàqare min kulli amrin ci mépp mbir seetlu nag yax bi ni def dahshu hum hum dellu ci mbooloo te ñaar ñi laaj ñaar rek lañu muy ñaari malaaka yooyu muy munkar ak nakiir gis nga fee itam mu def amru hum su yax bi defan nag dahshuhuma min kulli dahshin asqalu amruhuma min kulli amrin awjalu kon mu daal dëppoog li mu war a doon mënees ko xoolaat nag ci beneen yax ba xam nee malaaka yi ni ñuy ñëwee ak ni ñuy bette ak ni ñuy taxee néew ba jaaxle dara luñ di si amut seen biir itam dara lu ko gën a raglu amut lil ku li ñeel na kenn ku ne min xumaa ñoom ñaar xay nun bët kasam sin bu mel ne ab jant aw kanu xaasin wala lu mel ne përëm wala lu mel ne përëm lay sa fii nekk ci moom may nun aw seen bët yi day ba mel ne ab jant wala boog xong ba mel ne përëm wala xumaata ñeel na leen ñoom ñaar sawtun kàddu kara ajin gu mel ne dënnu xaasifin guddi aji fàq wala xay nu tëbët ba min xumaa ñoom ñaar kabaraxin mi ngi mel ne melxat xaatifin guddi aju fëkk nee na bu ñu waxee fii seen kàddu day xum day xumb ba mel ne ak dënn gu fàq seeni bët biñu tee xoole ba di day raay raay mel ne melxat gu gëf yu mas ci xaani danañu xotti al arda suuf sa ay yema ay yem masxin gu mu ci xotti maxan boole seen bi an yaabin ci ay bañ xisaamin yu di way rëy mooy yu màgg zurxin yu di way lerax nee na bu ñu dee ñëw dañuy xotti suuf si ak seeni bëñ seeni bëñ lañuy xottee suuf si bu ñuy ñëw bëñ yu rëy rëy fay atiyaante ñu dikkal almayta néew ba ndax war a asi fa féeteeg wàllu boppam wa yuq xidaani yi dañ koy dij wusay wusayta yi ci ndiggus bàmmeelam sax wusayta dafa des xi wasat rek xataa yasire ba dana mujj jaali sandi aji toog mustawiyan tey aji yemoo waraaxate gontu tegontu mu xoo yaramam wa mu seen di aji takk li ruuxi ñeel ak ruux waaye alaanihi te danañu ko laaj ani rabbi walis buur ba aljali bay aji feeñ waxaan rasulina ak walis suñu yonante bi annabi kadi kuñ solo al mursali kadi kuñ yónni muhammadin te mooy muhammad salla yàlla na nga xale ci moom sarmadan faw musalliman mbir mu mi aji dooli wóolu xale ci moom rabbun buur majuda bopp tedd na nee na bu ñu xottee suuf si ak seen i bëñ ba ak si dañu daal di dikk ci néew bi awee ko ci wetu bopp ba daal koy dij ci digg bàmmeel ba su ko defee mu daal toog fekk delloo nañ ko róogi nag ba war naa mën a tontu koy laaj ñu laaj ko nag kan moo doon boroomam jan diine la doon jaamoo yàlla ban yonante la toppoon bu ko defee nag bu dee jullit yàlla may ko mu tontu ne man de yàlla mooy sama boroom muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo doon saab yonante lislaam ji mu andil moo doon saa diine su ko defee ñu yaatal la ko bàmmeelam ba fa bëtam yam in kaana dem nekk na nag kaafiran di ab yéefar xul aw munaafiqan wala mu di ab naafiq yasir mu mujj mu lajj lijan di aji déng déngi ka ayri niki am mbaam zahaqa moom duuf na mooy mbaam mu suur lajj laja fulaanun mooy taraddada fi kalaamihi walam yu bayyin nekka ñi laaj ci bàmmeel bu di ab yéefar mbaa mu ab naafiq benn day déngi-déngi du mën a tontu wax lu leer aw yaqul wala mu wax lëxumaa ñel leen ñoom ñaar ne anaaman laa adri duma xam min ajli duhrihi ngir tiitam ma wa dayxil xabri ak xatub bàmmeel ba benn mu dengi-dengi du xam lu muy wax mbaa mu ne leen man daal xawma xawma fekk booba tiitaa ngi lu rëy ak xataay bàmmeel bi moo ko jàpp rek tuma yaqulaa topp danañu wax la xooñeel ko bi taw bi xin ci yedd ne ko anta yow daal laa darayta xamoo wala talawta te jàngoo ñoo bind wala talayta waaye mel na ne wala talawta ci waaw gi moom nañ gën a miin ci talaa yettuloo su ko def malaaka yi ne ko ah xaw ma ngay wax fekk lañ ko doon laaj rek xam nga moo doon kan moo doon sa boroom jan diine nga nekkoon kan moo doon sa yonante su ko defee nag mu ne xaw ma xaw ah, xaw ma ngay wax fii yeddi kullin nekk na ci loxol kenn ku ne min huma ci ñoom ñaar fii maa ci la nga xam ne sabate saxna miqmaatun bolde minal xadiidi bu bàyyikoo ci weng ñuul taqulat boobu diis na wa yadribaanihi te danañu ko dóor bi xaaca bolde boobee liyan xati xa ngir mu dog jusmaanuhoo yaramam wa xataa ya mujja ba dana yàbbi maa la nga xam ne rabaxa nampoon na ko wayaftaxaani te ñi ubbi lëxoo ñeel ko mina naari ci sawara baaban bunt li yarnu wa ngir mu jax jax mooy xool jàkk ila niiraani jëm ca sawara ya haada lii mooy la nga xam ne rawaa net na ko asiyooxu sëriñ sa fi xaalatil kuffaari ci mbirum yéefar ya duunamal inkaari ci lu genn weddi bu fekkee taaruwoo ko muy duunama inkaarin ci lu dul ak weddi waaye benn la ne ñaari malaaka yi kenn ku ci nekk day yore bolde bu ko ci wén gu ñuul bu diis a diis su ko defee nag daal di dóor yéefar boobu ca bolde boobee ba yaram wa tas day mujj sax soow moom nàmpoon di génn ci moom bu ko defee nag ñu ubbil ko bunt ca sawara muy jàkkaarloog bu ëllëgee bérébam war a nekkee ca sawara nee lii nag moom lañu wax ne mooy mbirum yéefar bi ñu laaj ci bàmmeel mu tekki nag kon bu dee jullit amal la si ndaal la nga xam ne xàkkaw nettali nañ ko fii ci ani muminin ci mbirum ajigam xan ni siqaati jële ca ndar lay ya alxaarifiina ña di way xam man ña nga xam ne xalaw kawe nañu fa in yakun dem dana nekk min ahli jannatin di bokk ci waa ajana yaqul mu wax bi lafzatin ci ab baat fasihatin bi aj rafet wala bi aj leer ni allahu yàlla jàll màgg na mooy saa boroom tuma yàqoo laa ni topp dinañu wax laxoo ñal ko ne ko fa bishir bégal la xadd xista dund nga wa mitta te nga dee mu'minan mbir mu ngay aj gam xusta làq nga arrachada cub ga nee na na addis ba indi ak ni boroom xam-xam yi wax rek mooy borom bàmmeel bi bu fekkee daa bokk ci waa ajana buñ koy laaj yàlla moo koy dëgëral daal tontu fa saasa ne man day yàlla mooy sama borom Muhammad moo yonente ba toppoon lislaam mooy diine ji ma nekkoon ñu ne ko yow day saye boo bég danga dund ci gëm faatu ci gëm daal koy yàq li bàmmeelam ba toll ne foofu yam muy gis mu leer nañ itam ne mu koy bëgg a mel ne leeru weer moo di wayuf si xaani dañuy yaatal alxabra bàmmeel ba maddal basari dayob gis ba mu nawaran mbir mu mi lu ñu leeral aydan ba tey ka nuuril xamari ni ki leeru weer dañ koy yaatal bàmmeel bu fa bët yam bi leer nañ itam ne leeru weer su ma yàqoo laan topp danañ wax laxoo ñel ko ko idd idd taji idd taji tëddal wanam ta nga nelaw kanaw matil xaroosi ni ki nelawuk ab séet idinil ta ba nga amee alkarama tedd nga la su ko ñu ndokkeel ko ne ko sa yow day say boo tëdd nelaw di ñu ndokkeel ab séet rek bu agsi ci bérébam ñu dalal ko rek noonu lañ koy dalal ne ko tëddal nelaw wayef taxaañ te ñu ubbi baabun bunt li ruux yi ñeel ruuxam nga idan boobe li yar taq yi ngir mu yéeg ilal jinaani jëm ci àjjana ya bu ko defee ñu ubbil ko nag buntu àjjana muy Chine mu ko ne bu ëllëgee feele jëm ndax bu dee yéefar ba dañ koy ubbil buntu sawara muy Chine xam ne fa jëm mu gën a metti mu gën metti ci moom bu dee gëm yàlla ki ñu ubbil ko buntu àjjana ba mu war jëm bu ko defee mu yàkkamti bis bi ñu taxaw ba mu dem ja faslu li ab dog la fil baasi ca dekkal ga waa alam xamal bi àndal xalq ci naka mbindeef yi yóbbu xazoona def na leen dekkal waxta sabaax ci waxtu suba su ma yux charoona toppaleef na leen pang mu ne wax nañ ne waxtu suba lañuy dekkal nit ñi ci lañ leen di pang ñuy taxaw yi fañ war a taxaw amal xiyaamat ndaal taxawaay ba faxinda zuhri nekk na fa tisbaar kadalika naka noonu almisaanu balaas ba waqtal xasri nekk na ci waxtu takkusaan maanaam buñ leen dekkalee ci suba gi dañ leen di jiital wang-wangal leen ñu jëm nag fañ war a taxawi loolu moom dana dem ba tisbaar bu tisbaar la ñu door àgg nag fa taxaw nag tàmbali taxawaay bi nag taxawaay boobu nag mooy wéy di wéy bu takkusaane nag la ñuy tàmbalee peese jëf yi waxaaka saaniki ni tayraanu tilka suufu fi naawuk yooyalee téere bi sax ci jëf yi kenn ku ne moom waxta maqribin nekk na ci waxtu timis fal taqtafi na nga topp mën na na nga xeeñtu benn lañ dane téere jëf yi nga xam ne ku nekk day jot soo kayit fa nga nekkoon te kenn ku ne mën a jàng nee nañu waxtu timis lañuy ñuy tasaare mooy la ñuy joxe téere jëf yooyu le amal muróoru ndaal romb ga bi siraatin ci siraat faxakko net lañu ne kaana am na mooy dana am waxta xisaayin ci waxtu gee xëga jàppal maa la nga xam ne xàkkawu net li nañ ko jéggi siraat ga moom nee waxtu gee lañ koy def faslun li ab dog la fii arkaani siraat yi ci ponki siraat wali siraat yi ñeel na siraat sabaxatul arkaani juróom-ñaari ponk fa tabiruha na leen xalam yaa dawil imaani yéen woroom gëm ga yajlisu dana toog al insaan nit ka fii kulli ruknin ci bépp ponk masoola ma mbir muy laaj la nga xam ne amarahoo digaloon na ko ko arrahmaanu aji yërëmi ja fa aju jib ndem dana tontu uddu xila kon dugaleef ko ci ajana ya wala tontu wut ko fi niiraani ca soore ya ne siraat am na juróom-ñaari ponk baa nga ne juróom-ñaari taxawaay yoo xam ne fu fa nit àgg dañ koy taxawal am lu ko fa laaj su fekkee nag jaar na ci juróom-ñaari ponk yi moom nit ki fu ca mu tontu fa lam fa war a tontu ñu dugal ko àjjana su tontoo ñu bàyyi ko mu jàll wi na su tontuwut nag ñu daaneel ko ci biir sawara ndax siraat sawara lay téem awuluha aj jëkk seen al imaanu muy gëm tuma saal topp aj ñaareel ja xani salaati walis julli fusta yal na